asalaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi salaamaaleykum suñu mbokk jullit yi dafa naa ni comme ni ñu ko waxee sànq ñu ngi ci bis bu mag bi nga xamante ni mooy bisub lislaam ndax borom bis bi dafa naa ni lislaam dong moo ko yitteeloon euh, moo taxoon mu daan jóg di dox ca tànkam yu tedd ya ay jéego di dem Afrique di dem Europe di dem Amérique di dem asi lépp rek ngir liggéey ngir yaatal liggéeyu way juróom wu tedd wa cheikhul xadim suñu yaakaar defe naa image yi ngeen di seetaan euh, euh, bu ngeen ko gisee di ngeen xam ni ñu ngi toog la commission de finance ñi nga xamante ni lépp luy wàllu xaalis ñoom ñoo ko ñoo ko yor ci ci 8 juin bi ñu to ñu ñu taxaw taxaw ak nii suñu baay Ablaye Diallo baay Ablaye ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, di la ziyaar ci bis bu tedd bi nga xamante ni ñun waa Brescia ñun waa itali amuñu lu ko ëpp ah dañu bëggoon a jël rek les première impressions ci yéen ñi nga xamante ni yéen ay commission finance te yor lépp luy wàllu xaalis lu jëm ci ci ci bis ci ci 8 juin waaye lépp luy wàll xaalis lu jëm ci jamee Cheikh Ahmad Bamba asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi leen siyaare di leen jégalu di ñaan ngeen jégal ñu balaa maa wax dara damay jégalu kii sama kaddu parce que olof bi leerul. ku may déglu na nga ma déglu rek saxal bul ma déglu ki sama waxin parce que olof bi leerul maa ngi tudd Ablaye Diallo di nekk Guinée Bissau di dëkk Touba nag waaw loolu moom mooy sama présentation yàlla boole ma na añu ah, mag ñu baax bokk ki liggéey kër Sëriñ Touba bi eh, bokk ki jawriñ yi bokk ki lépp ki wàllu finance eh, ñu taxaw ki nag ba suñu kenn kattan ginnaaw loolu nag ñu ngi sant taalibe yi yëpp bis bi buñ ci taxawee ñu taxaw ko ba mat sec parce que 2000 ba léegi maa ngi bokk ki commission yi liggéey bi gis naa taalibe yi nuñ ciy taxawee amuñu benn bis waxuma la sax ki ki Brescia Europe laa wax amuñu benn bis bu mel ni bis bi ki jaamu yàlla ki liggéey ki ki lépp lu nga xamee ni bool boole na ko ki liggéey Sëñ Tuubaa amuñu bis bu ko ëpp ngir lan suñu sañoon bis bi sax dañ koy wax ni mooy suñu màggal Tuubaa ñun ñun waa Europe yëpp waa Europe yëpp parce que bis bu mel nii amul fenn kon nag ñu ngi sant taalibe yi yëpp ñu ngi góorgóorlu ki wàllu finance xam nañ ni nag eh, xat-xat am na maa xat-xat lu mu am am taalibe yi moom ñu ngi def seen ken kattan pour bis bi jag maa nag comme sama jawri ñim ñu ngi fi maa ngi bàyyi kàddu bi a sama jawri ñim ñoo ma gën a man olof ñoom a gën a xam liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Baay Ablaay jërëjëf kaddu yi rafet na xanaa ñu jox euh, sëñ euh, ki mu dendal moom waaw mu sànni ci ñaari kaddu bisimilah awuzu billahi mina seytaan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Yen rahim yen mbokk ñu seetaan ñu ngi leen di ziar yen ñepp ku ci nek turam ak santam di leen bal ak di leen bal ak ah di sant bu baax tamit nak euh, suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamne day moo ñu ñu fekke daaw ñu fekke wa ren bes bi di besub Serigne Touba ku ne xamne ni bes bi day goor yalla Serigne Cheikh Mouhamadou murtada moko ñaanon ñu may ko ko muy besub Serigne Touba ngir de ku ne xam na ni Serigne tubaab moom lépp lu mu daj rek tubaab bi moo ko tegoon waaye bésam bi moom fay na mooy lam doon wax rek dana fekk si nasaraan bi ci seen biiri réew yey leen kon jàmbaar jooja liggéey bi mu doon liggéey muy 8 juin ñu décrété ko def ko journée Cheikh Ahmed Bamba moom lañ toog fii tey di ko sargal nga xam ne àdduna bépp ñoo fi daje Europe gépp benn bés bi moo fi am muy bés boo xam ne doomu Serigne Touba moo ko moo ko ñaan kon ñoo ngi ziar ñëpp di sant ñëpp nag xaj na jox bokk yi rek ñu sànni ci yeneen kàddu jox sëñ si la mi nga xam ne mooy trésorier général mu sànni ci kàddu jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, gis ngeen ko ñu euh, ngi waa toujours ci bis bu tedd bi nga xamante ni moom la ñuy ameel fii. Eh, dañuy jox kàddu xam naa ah sëñ Modou sëñ Modou asalaamaaleykum wa rahmatulah <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf uh-huh. waaw waaw asalaam waaw kon jërë ngeen jëf kon gis ngeen ko noonu soxna yi waaw waa daayira soxna jaara ñoom ñi nga xamante ni defe naa kenn dootu leen présenté ngir liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci jamiya bi ñu ngi koy def ci kër sëñ Touba gi euh, di jaajëfal seen njiit euh, soxna Ami sàmb di bég ci sargal bi nga xamante ni euh, sëñ wax nañ ko léegi ci ci ci rajo bi ngir bëgg mu dem siyaare ji Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu amoon ay kàddu ñoom itam yoo xam ni bëgg nañ ko cee sànni ñu jox leen karal bisimilah. wala nga jox asu asu wax. nga bu mucc am yow. waaw mucc waaw mu mucc noonu ah, ah, déedéet moo yor ñaari mucc am. rek asu ndaw benn wax rek la wax la asu. su ngeen gisee suñu bi ñu baax na naaj bi dañuy sant yàlla bu baax di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba ba mu bari doole di see di jaajëfal soxna Jaara Bousso ñu ànd nag ak ñoo xam ne suñ borom daf ñoo booleek ñoom ba ñu sosee daayira soxna jaara bi ba tey ñu boole ñu ak sëñ Babacar Diouf mi ak sëñ Ablaye Sylla ñu ànd ak ñoom di liggéey liggéey bu rafet ci soxna jaara di ànd ak ñoom di dox ci liggéey soxna jaara bi ba jamono ñëw ñu randal sëñ Ibrahima si la ah, randal ay tànkam ba Sénégal ñu boole ñu ak sëñ Mat Caam mii ñu ànd ak ñoom di liggéey liggéey bi ba liggéey ko ñaar fukki at ñaar fukki at yooyu ñu ko liggéey soxna Anta Baabu mii ñu àndal tey muy vice présidente jamiya bi ak soxna Njéeme Caam mii tey di vice présidente bi ak secrétaire général bi di soxna Kiné Xuma ak sama adjoint aux finance di Soxna Faat Ñang ak jigéen ñi nga xam ne teewuñu fii nekk ci benn ci liggéey bi nekk ci beneen liggéey di ko liggéey jigéen ñooñu ñëpp di jigéen ñi soxna jaare yi ci biir ak yi ci biti ñi ñëw ñi teew ak ñi teewul ñëpp dañoo yor seen kàddu tey ñëw di def loo xam ne ñun de lott nañ ci mënuñu leen a jaajëfal mënuñu leen a sant waaye ci turu soxna Ami Samb ci turu daayira soxna jaara bi yëpp bu Brescia bi ñoo ngi seedeel yàlla di seedeel yonent bi ne sant nañ sëñ Modou Thiam sëñ Ablaye Sylla sëñ Babacar Diouf di bég lool ci ànd bi ñu ànd ak ñoom di ci kontaan lool tey ñaan yàlla yàlla bu mu ànd bi teel a dakk yàlla nañ ko yàgg ànd ay at ba sargalaat leen yeneen vingt ci barke yonent bi sallallahu alayhi ci barke Serigne Touba ñu yoroon nag ay sargal tey di ko jox sëñ Modou Thiam di ko jox sëñ Babacar juuf di ko jox sëñ Ablaye Sylla di ñaan suñu borom soxna Ami Samb yéen a ji am ci moom ci sargal ko ba woon ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom mottali ko mu ànd ak jàmm ak xéewal cant gi nag man miñ jox kàddu gi pour ma def ko lottu naa ci amal naa ko ab tàmbali. waaye amul ab yemukaay yàlla nañu leen yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak barkeb Soxna Jaara bi ñuy liggéeyal ak daraje Cheikh Mouhamadul Bachir barkeb Cheikh Mountakha Faye ba ñu yàgg koo def ci barke Serigne Touba yàlla buñ doon si mujj bi daje ci barke yonent bi sallallahu wa sallam waaw. jërëjëf jërëjëf Astou kàddu yi rafet na jot na macha allah euh, ci li ngeen xamante ni comme noonu mu ko waxee sargal ndax euh, li olof naan. Euh, ku yàgg ci teen baak fekk la fa defe naa ni tey jii loolu wér na ndax euh, liggéey rek moo am solo waxuma laa nag liggéeyal euh, Cheikh Ahmad Bamba kon jërëjëf asu ci kàddu yi ñu ngi leen di jaajëfal jërëjëf asu eh, dañoo am patience bu day na dañuy taxaw xaar la te fu ñu la munti jëlee lu mu guddi guddi dinañ dellu siwaat ba sa buntu kër taxaw nga ibbi dugg message ne dugg naa maa ngi ci jàmm wala ñu woo sa borom kër ne ko ñoo ngi dem ñu dem ñibbi ku ci feebar ñu dagg seen yitte ñëw ku ci am soxla ñu ñëw doxal la ko maanaam ñoom ay jëkkër lañu ay frère lañu ay àndandoo lañu ñuy liggéey ak ñun liggéey bu metti ndax ku nekk xam na ne jigéen nekk ak moom yombul tey kenn ci yéen rek bu rëccoon ba dugg ci suñu panel bi liñ leen di yàq par man de damay profiter ci occasion bi di leen baalu àq Modou Thiam Babacar Diouf man dinaa ko message 4 heures du matin dinaa ko message 5 heures du matin 30 minutes lay pause dama ko naan di minutes yi maa ko moom déglu ma ma wax la li ma la bëgg a wax ci kilifa mu déglu nga wax ba pare mu reeni la waaw baax na. Babacar moom dama ko yab yab ba dama ko naan Babacar eh nangam ak nangam bu pare man Babacar lu ma la wax seetlu naa ko mu ne garaawul. yàllaa ma booleeg yéen lu ngeen def baax na lu ngeen wax baax na ñu ñëw fi ci ndigalu taa ami Samb nag daayira bi yëpp la vice président a ngi nii deuxième vice présidente taa Assou Babou finance Fat Niang trésorière ci turu dayre bi yëpp suñu amoon billet Makka dañ la koy jox ma caam Babacar suñu amoon billet Makka dañu la koy jox sen natango ba nek senegal nga xamne daf fi nekkon demb te ku ne xamna ni andu jigen du jeex jigen mom su jappe de rek moy tax mu bayyi te dañu fasiyene and ak yeen ba aljana ablay silla mom mom mom li ñu jox ko ko ak xol bu sedd guyu tay ñaan bu déwénee mu ñew fekke si ko ak ñun di ñaanal ñëpp ma ngi jéggalu barke Serigne Touba jigéen ak góor dafa metti man sax soxla ma ñu ma jigéen ak góor dafa metti te depuis 98 ba léegi dafa yàgg na xale yi su juddu woon bu dee jigéen ñi am na nañu borom kër bu dee góor ñi ñoo ngi wut jabar waaye boobu ba léegi ñoom tàyyi wuñu bawuñu lu lu nekk lan leen wax te ñoom dunoo uf ay soxna na ñun sunu kër te seeni soxna duñ leen libéré ñu ne suñu boromi kër am si ñoom confiance xam ne ñoom suñuy càmmiñ lañu ñu bàyyi ñoo ñoom fanaan noog ñoom àll yend na noog ñoom àll lu ne def na soxna jaara bi kon boot jéeg jaa ngeen jëfati suñu xol sedd na si yéen waaw jërëjëf jërëjëf léegi kon dañuy jox kàddu sëñ Modou Thiam moom mi nga xam ni moo jiite commission finance ci teraanga yi nga xamante ni defe naa soxna euh, daayira soxna jaara indil nañ ko tey waa commission finance sëñ Modou bisimilah بسم الله الرحمن الرحيم بركة شيخ عبد الأحد السلام عليكم ورحمة الله كون جيرغن جيف خمنا واخ جي دوغ دوندخ واخ دغ يالا سما خول دافا سما خول دافا فاس ندخ واخ دغ يالا سيرن توبا لاي سانت سيرن توبا ندخ لي ليب سيرن توبا لا سوما نيكون تي لينن خاجنا لي دو ام كون نك سيرن بي رك فا نك yàlla nañu yàlla gën a dimbale ba ñu gën ko mën a liggéeyal ndax kat lu dul liggéeyal ko liggéey la ko gën te dafa wax ne kat sëriñ Tuubaa lay liggéeyal ba say na say morom mën la kon danga doon wax rek liggéeyaloo ma keneen nga doon liggéeyal ñu ngi leen di sant bu baax di sant soxna Ami comme ni ngeen ko waxee ñun ñiit lu ne lañ leen di wax groupe bi ngeen ñu boole lu ne kii nga xam ne taasu rek lay liggéey lu ne la len ci wax ah, amna lo xamne tay ji ku dajanoo ak yeen ci mbedd wax len ko ngeen saga ko te da ngeen koy deg ñu len koy wax way da ngeen di xamne manam liggey bi ñu and bokk ak yeen rek motax ñu di len ko wax waaye du lenen ah, di len wax lo xamne même bu len ko seeni borom ko waxon sax ngeen mer ñun dañ len koy wax ngeen nangu ko ngir xamne soxna si ngeen di liggeyal kon nak yalla ñu yalla bokk dimbal ñun ñepp ah, ngeen gëna gor gorlu gëna jappandal seeni borom kër gën leen a yërëm gën a ànd ak ñoom te xam na kat wax ji li muy bari bari bari bari kenn ku nekk ka nga boo ko déggalee jàpp ko foo yootu jot ko ndax ñooy seen kiira kiir laa yéen ñëpp ñoo leen yiir ñooy seen i garab ñoo leen di faj ci wet gu nekk kon nag ñu góor góorlu ci ànd te xam na kat soxna jaara moom mooy Serigne Touba yéen ngeen am ci cër boo xam ne bii daa boole kër Serigne Touba gépp waaye it am ci kër goo xam ne spécial la ci muy kër Serigne Bassirou mu doon loo xam ne lii fi mu ne da ngeen a toll ci li ñuy wax naan jal bi ci ngeen nekk jal bi ndax waa kër sëñ Basiru ñooy kër sëñ Tuubaa fi ñu toll ni ñooy sëñ Tuubaa ci kaw suuf kon nag ngeen góorgóorlu gën a jàpp ci liggéey bii gën a soññante te tàngam lu gumba dëx lu bañ a déglu yu bari bañ a xool yu bari yal na leen yàlla gën a jàppandal ci barke Serigne Touba ñoo ngi leen di sant bu baax a baax maa ngi sant sama bokk yi ma àndal. ndax gis ngeen len ci suba ba legi ñom ñu ngi tok kenn ku ne yor kayit ak big di bind man fim ne ni yenn kayit yorumako fu ne mang fay wër di dem ko ñew di taxawalu lu ne may dafa koy indi te gestion bi yëpp man na ne fim ne suñu toge may tararar di wax way liggey bi yëpp ñom ñi ñoko ro ñokoy def kon nak mang di sant di leen gërem di ñaan yalla mu guddal seeni fan wëral leen sàmm leen sàmm seen njabot ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf sant nañ ñu baax baax kon amna ñu jox ta ñu jox taasukat bi moom mu sànni ci ay code rek baax na jërëjëf aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maanaam wax dëgg yàlla santoon nañ sëñ Tuubaa waaye tey lañ ko gën a sant nag tey jii lañ ko gën a sant ndaxte cant goo xam ne xam nañ fu mu tàmbalee waaye xamuñ fu mu yem ndaxte ay jigéen booy ànd ak ñoom 98 ba tey jii bañu toog di am xalaat loo xam dañ la ko sargale kon ànd bi moom rafet na te ku ne xam na ne àndub góor ak àndub jigéen jafe na waaye nag bu yàggee rek jigéen ñaa baax ndaxte moom sant nañ leen bu baax li ma ci gën a neex nag mooy si Sylla mi sama doomu ndey mi ngi ci sargal moo ma ci gën a neex ndaxte Ablaye damay wax ni Serigne tubaam mu ñu boole man ak moom ndaxte Seex Kan yal na suñu borom gën a yokk yërmandeem ci moom moo ma boole woon ak moom ci saalu maam jaara lañ ñu boole. mu ñëw toog seqan ne ma ana kër Diouf saal bi fees del ñuy réunion ma ne ko maa ngi nii mu ne ma kii de dafa nekk Pralpino di liggéey te ma gëm ni soo ko jàppalee jamiya bi dana ko jëriñoo Ablaye bind numéro am jox ma ma bind sama numéro jox ko mu ànd ak man ànd bu ànd bu doy waar nag parce que am na bés maa ngi koy nettali benn bés dañu ànd sama oto man ne sama oto bi dafa tilim. Ablaye bàyyi ma bañ dem ci keur seigne Touba gi mune ma abal ma sa caabi dafa am lu ma nekk da koy raxas am ko ko fekk ne ko yow da ngay raxasal Babacar Diouf sa auto mune auto bi de suma su auto seigne salihu nima koy def non lay def auto bii te lolou ànd bu rafet rek moko moko waral. ànd naa ak mom ba mu joge fi yàlla defal ko tawfiq mu nek Sénégal musu ñoo ànd fo xamne rus nañ ko ñu fa fek ku ñu fa fek ànd bi nak keur seigne Touba gi yeen sa ñu jàppante bay bëgg xex ndaxte ànd bi dëgg ko lal du àndu naafeq ba ñuy dugg ci kër sëñ Tuubaa gi xaritoo gi dañ koy teg fee bu ñu duggee defante am na yoon boo xam ne defante naa ak moom ci kër sëñ Tuubaa bañ bëgg ñoo àtte te keroog bu ñuy dem këram laa waroon ndogoo ñoo bokkaat oto ma dem toog bi nit ñi ñëwee di wax ak Ablaye la pour wax ak moom ti sa diggante ak Babacar ñëw fekk ma toog ñi ñëwoon dañ ne da ngeen di fontoo nit ñi yéen li ngeen jàppante fee léegi ñëw toog fii di xàqtaay di reetaan man leen déedéet leen liggéey sëñ Tuubaa lii leneen la kon yéen tamit am nañ cant goo xam ne tamit wax dëgg yàlla yoral nañ leen ko naqari wu leen a àndal nag sama classe gi ku leen xam xam ne ñu naqari deret lañ waaye nag jox ngeen ñu cër façon bu ne ak lu ne lañ leen di wax te taxut ngeen euh, mere ci ñuñ dara di santit soxna Ami Samb mi nga xam ne moo jiite liggéey bi dama koy wax toujours yenn saa yi ma wax ak moom ba mu yàgg mu naan waa Babacar Diouf yaakaar ngeen duy màndi tey ni mu waxee ni moom Babacar day mandi de yéen yaakaaroon ni danañ mandi ngir kaddu yu tàng yoo xam ne dinaa ko waaye nag yooyu yëpp du ko du ko jàpp kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci sama tur ci turu Modou Thiam ci turu Ablaye Sylla mi nga xam ne tamit bu fi nekkoon tey taxaw fi ni ñu fi taxawee ñu ànd guddil daayira bi bëccëgal daayira bi ñu ngi leen di sant bu baax maanaam daa wax dëgg yàlla nu mënuñoo jooy ñu jooy sax parce que moom bu ñu <laughs> duñ ñoo jooy moom duñ ko waaw mënuñoo mënuñoo jooy waaye kon nag jërë ngeen jëf daal wax dëgg yàlla xam naa daal li ñu wax na bu fi yemoon sax neex bu buñ demoon ba yomal xiyam tey ji ni ngeen ñi defal ni sëñ Touba dama leen doon nax sax baax na barke sëñ Touba jërë ngeen jëf seytaane jiim bismillaahi rahmaani barke borom daaru ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu mbokk taalibe yëpp di sant sëñ Touba di sant yonent bi sallallahu taala wa di sant maam Thierno muy sunu buntu ci sëñ Touba liggéey bi nag dañuy wax ne liggéey bi sëñ Tuubaa bi ku ci yàlla def nga nekk ci war ngaa sant bu baax a baax ndax liggéeyal sëñ Tuubaa moom ak jagle la kon yàlla def ba nga di ci liggéey war ngaa sant bu baax a baax liggéey bi sëñ Tuubaa bi nag damay wax ne tabaski la tabaski moom maanaam ñaari pay la dañ ko am sam neex-neex am ci sa sa biir bu fees am ci payu yàlla moo liggéey sëñ Tuubaa bi ñooyam liggéey bi jam yee bii moom tam naka naka su noonu ndax liggéey sëñ Tuubaa boo ci nekkee da nga ci am payu yàlla payu yonent yi payu sëñ Tuubaa am ci payu jàmme bi ndax lépp loo xam ne nii gaar na la fi dégg nga jàmme bi dana ci taxaw ba problème yooyu waaye toy ci yow kon ñoo ngi sant bu baax a baax ñu ngi wax ne nit ñi di dem ci day yi ne ni ngi dem ci day yi tey tey tey tey tey tey liggéey ndaxte moom dong fi des waaw loolu daal mooy sunu soññe na nit ngi dem ci daayira ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey bàllu àq wasalaam. waaw asalaamaaleykum mbokk taalibe bi maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jéglu lu baax ci kàddu yi ñu yëkkati waaye di doole sant yàlla bu baax rek ci barke sëñ Bamba. waaw parce que wax dëgg yàlla commission finance depuis bu mu fi ba léegi wax dëgg yàlla dañoo yaata ci liggéey bi woon lépp ñu liggéey bi demee ba man cee taxawaay bi yenn taxawaay yi kon boog damay sant bu baax a baax ñi ma ko ak liggéey nu ma ko yaatalee ba mën ci dugg baax maa ngi sant ñëpp ñaan yàlla aussi eh, booloo gën a booloo xol yi booloo kàttan yi ba mën na liggéey sëñ Tuubaa dañ ko bëgg a liggéey maa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji xam naa dugg nag comme li ñu waroon wax yëpp suñu jor na ko dañuy ñaan yàlla rek bis bi yàlla nañ ko yàgg a teewee déwén yu bëri bëri rek si bak sëñ Baara bu baax mbokk taalibé yi ndax wax dëgg yàlla bis bi bisu taalibé yëpp la du bisu Brescia bisu ñëpp la normalement bu ñëwee tey ñëpp dañu war bàyyi seen yitte ñëw ci bis bi ñu mar ñu màggal ko ma maa ngi soñ ñëpp di soñu mbokk tàll bi yëpp ñëpp maa ngi lay soñ ci bis bu ànk bu rek ñu mën ni bokk euh, teew bis bi màggal ko ci barke sëñ Bara baa ngi di jégalu kàddu yu baax a baax jërëjëf ma joxal sëñ euh, Ndiaye yi sax mu daan ay kàddu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar waaw di yëkkati kàddu ci turu Touba Veneto di sunu jëwriñ sëñ Massaer Diané ñu yebal ñu fi ay at ñu bokk ak waa Brescia yi liggéey bi muy liggéey boo xam ne si ñu ngi ànd ak ay at ñu yaatal ñu ci ñu leen ci sant baa di leen gërëm ndax ku la woo di leen liggéeyloo ci Serigne Touba amoo payam. kon nag ñu ngi sant commission finance yëpp di sant mbokk taalibe Brescia yëpp di wax ni ñun day amuñu amuñu seen pay ndax saa su ne bu bisu le huit juin ñëwee liggéey bi yëpp ñun lañ koy bokkal. réunion préparatoire yëpp ñun lañ koy bokkal ci wàllu organisation wàllu finance lépp kon nag ñun amuñ lu may di leen sant di leen gërëm waa Touba Veneto ci kàddu sëñ Massaer Diané ñi nga sant mbokk Touba Pontevico Touba Brescia ak mbokk taalibe yëpp commission finance it nga xam ne si man maa na ci bopp di trésorier saa su ne at mënuñ yebal ma fiit maa ngi leen di sant ñoom ñëpp gis naa niñ ma taxaw ak liggéey bi ni mu yaatoo macha allah kon nag ñi nga sargal ñëpp ci bis bii di ñëpp di nuyu ñëpp wax ji daanaka li ci motoon wax yëpp sëñ bi wax nañ ko. ndigal la rek moo doon ñu sànni kàddu ndax taalibe ndigal lay jëfe waaye kon daanaka li ñu wax doy na sëkk kon nañ ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ni yàlla nañ ko téye ay déwén yu bare bare bare te xam ne bis bii bisub sëriñ Touba la kon nag Europe yëpp ñoo ko bokk may ñaan ñëpp di sarga ñëpp képp koo xam ne si bis bi ñëw tee loo jàpp na ko bàyyi nga ñëw taxaw ci bis bi ñi ngi sant bu baax ñi ngi gërëm bu baax ñi ngi jégalu ci kàddu yi bu fekkee am na lenn lu ci dëng ci sunu matal bu fekke lepp djub nak ci katanu sunu borom la jere ngeen assalamu alaykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waa asalaamaaleykum wa rahmatulah suñu mbokk jullit dafa naa eh, ñi ngi fi toujours ci vico wala mani ñi ngi fi toujours eh, ci Brescia eh, ci bis bu mag bi nga xamanteni moy bisub l'islam ndax damay wax toujours ni ki nga xamanteni moy suñu yaakar teek Serigne mohammedul murtada moom lislaam rek la daan wax lépp loo ko mës a wax danaan la mooy lislaam kon euh, bu bisam ñëwee euh, di bisu boo xamante ni bisub sant yàlla la ah, bisub lislaam rek lañ koy mën di tuddee euh, mu doon bis bu mag di 8 juin defe naa ni yéen a ngi gis image yooyu nit ñi bàyyi ko fenn fu nekk nag ci Italie laay wax wala ci Europe bi yëpp ñëw fekke si bis bi ndax bis bi moo toll noonu dañuy wax ni amuñu lu dul 8 juin ñun waa Brescia ndax bis la boo xamante ni defe naa ni bokk na ci bis yi nga xamante ni mooy njëkk yu ni amal euh, ju jagleel ko lislaam jagleel ko yoonu murit jagleel ko Cheikh Ahmad Bamba fii ci biir euh, Europe donc su bis bi ñëwee defe naa ni il faut nii rek lay mën a mel euh, sant yàlla nag bu baax di ñaanal Serigne Mouhamadou Mourtada yàlla yokk ay leeram waaye ki nga xamante ni mooy euh, doomam di di taalibeem di Serigne Mamor Mbacke moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te euh, may ko wér ndax liggéey bi nga xamante ni euh, mooy liggéey bi ko bàyyeelam bàyyiloon defe naa ni mu ngi ciy def kemtulaay kàttanam tey bis bi wane na ko muy fii ci Europe muy Amérique muy Afrique fépp foo dem rek. Euh, fu ko sëñ Mamor euh, liggéey bi sëñ Mamor yóbbu na ko foo xamante ni defe naa ni ah wax nañ wax dëgg yàlla sant yàlla rek moo war kon defe naa ni bis baa ngi nii yéen a ngi seetaan image yi dama leen di bàyyi ngeen seetaan image yi su ko defee euh, ñu ngeen xool rek li xew ci bis bi ndax bëgguñu dara dara dara romb leen ci bisimilah jërëjëf.